bon lu njëkk moo di que ni mu duggee ci campagne bi baaxul vraiment boo xoolee dafa njëkk wax day def conférence de presse reporté ko ba léegi kenn xamul tax mu reporté ko ñaareel bi mu ni nga ko waxee ngay an nar annonce annoncé sa candidature euh, bëgg nekk njiitu Sénégal nga duggee nii ci campagne loolu loolu moom euh, bett nañu bëri parce que quand bokk na ci présidentielle 2007. Mhm. bokk na 2012 bokk na 2019 mu ngi waaj bokk ñe ñeenteeli yoon muy bokk ci élection présidentielle mais kooku war na am expérience pour xam naka la war a duggee ci présidentielle. après euh, nan la si waroon a duggee. xam nga booy dugg nga nekk candidat. Mhm. nga bugg jiit réew. waroo xaar ñu lay laaj ndax candidat nga wala doo candidat suñ suñ la laajee rek yoo pare woo mais est-ce que contexte bi aussi tamit euh, wanewu ko mu réagir noonu wala. noo contexte bi mooy euh, li ma la wax que ni mu duggee ci campagne bi baaxul. Mm-hmm. ndaxte lu mu njëkkoon def su fekkente décidé na nekk candidat. Mm-hmm. coow Macky Sall waru ko ci fekk. warul toog fii di wax Macky Sall candidat nga wala doo walla wala man damay bokk ci Benno wala damay dafa waroon leeral loolu yëpp avant muy jël kàddu. dafa waroon démissionner si 16. mais loolu moo ñu war a njëkk. ok tey ji nga nekk candidat yow sa candidat bi sax wóoru la. mais mais est-ce nekkul aussi tactique politique boo xamante ne moom il est obligé. mu jéem a woyofal tuuti par exemple bu fekkee dafa génn avec fracas si biir benn Bokk Yaakaar peut-être ñoom dina perte ay électeurs foofu peut-être aussi tamit électorat am demewul noonu mu jéem a euh, euh, négocier ou bien. non non loolu ay lay la ci waxam sax ci conférence de presse bi nee na. Mm-hmm. moom euh, kenn nekkul chef am loolu la loolu la bëggoon wone mais li muy wane tey ji mooy mënoo nekk. candidat nga bëgg jiite réew nga wax ba pare ñi nga àndal ñu lay wax yow danga war a démissionner d'accord d'accord mais loolu image dafa dañ koy dañ koy nu ñu koy waxee sax c'est une image troublée. Mm-hmm. c'est une image négative d'un candidat une présidentielle. d'accord dinaa nii dafa waroon dafa mm-hmm. waroon jël responsabilité am. Mm-hmm. ne man candidat la génn naa ci gouvernement génn naa ci euh, maa ngi remercier président de la république. mais mu wax nit ñi lan la fas yéene def d'accord